naam euh, ku ku mën a bind na bind ah bind bi mooy gën a bind bi mooy gën a gaaw quoi. Hmm. nee na euh, kii nee na ce que élève day joxe euh, asaka. élève bu fekkee ah élève ça dépend bu fekkee bi am na alal kay mu denc alal bu mat at te bu mun cee génnee yi day génne affaire bi tegul ci élève ak ci kii bu fekkente ni. am na ñun mën na nekk élève fekk dafa am xaalis am na héritage bu nga ko fi bàyyal am na société bu mu ubbi kay mën na joxe comme joxe azaka ci majeur la ak yor alal waa nga majeur nekk jullit ak yor alal naam ko bu fekkee loolu la mën na joxe azaka naam naam imaam sëriñ salaamaaleykum day laaj signe astrologique ndax dagan na wala dafa xaram signe astrologique mooy lan mooy li ñu naan horoscope yooyu noonu ay ay verso ñu judd tel mois ba tel mois genre mel noonu lay laaj non loolu ay njabar la loolu ci ay lasaraar xam-xamu lasaraar la ñuy sukkandiku comme naan kii mooy bélier kii mooy lion kii mooy kii yooyu la n'est-ce pas. man am naa fi am naa ci question sax euh, ça tombe bien <laughs> temps yëpp maa ngi koy xalaat dama am euh, euh, damay defar objet personnalisé donc man à la base dama koy booleeg ay drapeau mais sama xel dafa demoon ci loolu xaw ma ndax mën naa jël maanaam signe yooyu. pa yooyu Aidara ndax mën naa jël euh, dama doon jël da ay drapeau affiché ko ci taas bi est-ce que mën naa jël maanaam logo yooyu noonu associé ko ak taas bi wala déet maanaam euh, signe beek euh, dat bi ak tour bi noonu bu fekkee loolu ci ci lañ ko xamee day day day représenté loo xam ni day wone ay luy ñëw suba ay xayb day wane ay kumpa comme ñu ne kii comme que lii la moom lii moo koy dal ak lee mooy da fekkee loolu lay représenté loolu dagan fekkee loolu lay représenté loolu dagan parce que subha la waaw loolu la hmm. rasulaasalaam ali diinihi wa irdi ku moytu ay subha rek kooku moytu na mucc na ci diineem ak kii woon naam naam bind bi moo gën a gaaw ah mën a bind na bind est-ce que est-ce que dem tarawih fekk imaam bi di julli gee dagan na nga julli de rakk nuyu jàkk non non non non soo duggee tarawih fekk imaam di julli tarawih ànd ak moom nga dugg tarawih waaw juli da ngay julli da ngay nuyu jàkk lu ñuy tere rek mooy nga toog ci jàkk sans julli lu ñuy tere mooy nga toog dugg jàkk sans julli toog dugg jàkk toog te julli woo ñaar rakk yooyu doo salaam loola tere mais boo fekkee imaam mu tarawih àndal ak moom ñoo rek a dugg direct comme yow dugg nga jàkkate toogoo comme yaa ngi julli ñaar ràkk bu fekkee ne dangaa ñëw julli woo fekk imaam di julli tarawih àndal ak imaam bi nga yéene yow gee nga yéene gee bu imaam jullee ñaari ràkk sëlmal nga ànd moom taaya bu sëlmalee yow nga jug indi ñaari ràkk yu des bu defee di nga am tiyaaba and ak mbolo ba par di nga fay sagee naam alaykum sans question bi nga don répondre ci walu walu wax kumpa dafa am ku laaj su fekkee ne di def prévision météo yi nak ndax ci lay dugg wala dé non non météo lolu xam-xam la am nañ ay matériel am na lu science découvre de li comme asaman si xiin na mun na taw lolu xam-xam la bu fekkee lolu xam-xam la bo xamné ñoom science moo ko ñu gis ko ci science xam ko loolu dara newu ci loolu dara newu waaye nag buñ ne bu ñu jas mu ne suba lii day am loolu nag mooy problème bi nañ suba kat ah yaakaar nañ wala mun na am mu taw wala mun na am lii am mais nag jas mu jas mooy problème wala ñu boole ci incha allah mais bu ñu jas mu waaw bisimilah kenn ku nekk ci kaw. Uh, um, kan asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu. Mike naam. Sass uh, suñu borom yokk xam-xam bi incha allah rabi aar sa njaboot bàyyi fi ba kanam kanam incha allah rabi nga ci diine bi ak ci xam-xam. dama am benn lënt-lënt rek bu ma am ci côté parce que damay dégg ñu ni yàlla suñu borom dafa wax ci alxuraan ni bisu maanaam weeru koor dañuy ubbi buntu aljana yi léegi ma bëggoon xam léegi e, ci misaal bunt buñ ko ubbee léegi kon nit ñi dañuy am droit dugg biir aljana wa ilaa e, ubbi boobu noonu ci lan lañ ci jublu wala boog lan lañ ci war a mën a e, comprendre ci ubbi bu ubbi aljana ci weeru koor. almuhim am na ñaari wax. ci borom xam-xam yi am na ñu ne am na yeneen i mbindeef yu nekk foofu yoo xamante ni amaana ñoom dañu fay dugg ñeneen ñu ne pour ñi nga xam ne ñoom ñoo faatu nekk ay jullit dañ lañ koy ubbil air bi di ci dugg ñuy nooy xet bi am na ñu ne luñ ci nomm moom mooy dañuy ubbi buntu aljanna maanaam ngir ay yiw dañuy ubbi buntu buntu yiw mais am na dëgg-dëgg xaqiiqa la buntu aljanna dañ koy ubbi dañuy tëj buntu safara yi dëggantaan naam kanta nak dañ fay dugg wala duñ fa dugg allahu alam loolu yàlla yàlla moom moo xam dafa am ay wax ci borom xam-xam yàlla rek xam la si jublu naam naam barakallahu fik akhi waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh ki dafay laaj eh, eh, bu la ñaari rakk fajar rawe dang koy ginaaw bi nga julle suba waaw ñaari rakk fajar buñ la rawe ginaaw bi nga julle suba mun nga ko julli ginnaaw bi nga julle suba mën nga ko mën nga ko julli naam li ñaari question la ki neena est-ce que dugal ay vidéo comédie TikTok dagan na daganul fekkee ay fen la comme comédie yu ci bëri dangay eh, gis ne ay fen la jullit warul am temps ay comédie ay reetaan yoo xam ne day woowal xolam loolu julli da ko war a moytu julli dafa war a focus ci temps loo xam ne da koy am njëriñ loo xam ne da koy jural tiyaaba waaye ay comédie ay yooyu lu bari ci comédie ay wax lu dul dëgg la ak waxi safaan ak waxi ñàkk fayda te julli temps dafa sàkkar yoon salaa sallam naan ixtanim xamsan qabla xams profitool ci juróom yi balaa juróom di ñëw mu ne ko lan bokk na ci wa faraaxaka qabla shughlik jamono bi ngay am temps balaa nga koy perte mu waxaat mu ne ñaari xewal yi de xewal yi rëy la ñu bari de maanaam dañ ko sàggane wala tàbbi wuñ ci maanaam profité wuñ ci ñaari xewal yi benn bi mooy wërgu yaram beneen bi moom mooy temps comédiens yi yëpp jëmuñu fenn jëmuñu fenn ay buzz lañu bëgg ay kii nit ki dafa xool temps loo xam ne su ko defee au moins dina ko amul njëriñu àdduna wala njëriñu àllaaxira mais comédien nga ree bu génn nga ree xaaxaaxa après jeex na ba njëriñ nga ci am ban njëriñ au moins nga dem xool loo xamante ne soo ko defee dina la jural sax benn njëriñ aduna wala mu jural la njëriñu àllaaxira waaw loolu ñëpp dañ ciy tàbbi des fois bëgg ay comédie wala di seetaan comédie ñun ñëpp lu dul ko yàlla yërëm rek illaa man rahimallah man dëgg fa yàlla amul benn njëriñ yàq temps kese la. ki neena ndax mën nga julli qiyamul layl ginaaw ba nga jullee safaak witr na mën na waye nak do julli wat witr witr mom ben yoon la la witran fi layl ken du julli ñaar witr ci ben guddi na comme bu da nga nafila ba nopi nga bëgg julli guddi gi nga julli safa witr mën nga julli ñaar rakka wala ñent waye nak witr mom ko ko waaye lu gën mooy na nga yem ci douze onze rakka wala treize rakka ndax yonent bi salaa sallam loolu daan julli Aïcha nee na kaana laa yaziidu ala isna achara rakka daawul julli lu ëpp onze rakka Ibnu Abbas ci xadisam julli na treize rakka kii nee na est-ce que baax na di nelaw ba ndogu paase baaxul baaxul bu fekkee moo ko tey baaxul bu fekkee nag euh, teyu ko dafa sonn nelaw moom dara new ci fekkee na ndogu paase lu ci jublu may nelawul timis nelawul ci julli timis avant julli timis yeewu na loolu moom dara new ci waaw yeewu na avant julli timis loolu moom dara new ci ñi nee na ban ñaan lañu war a ñaan booy ndogu am na ñaari ñaan yu ñëw ci téere sunna yi benn bi dafa faible beneen bi dafa wër am na boo xam ne dafa faible wërul mooy allahuma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu boobu wërul sénégalais yi nag boobu lañ leen tàmmal ci rajo yeeg télé yeeg bu ndogu jotee rek ñu ne allahuma laka sumtu boobu dafa faible xadis boobu dafa faible bu gën a bu gën a wër mooy dhahaba zamau wa al uruqu wa thabata alajru insha allah dhahaba zamau moom mooy Eh, li nga xamanteni mom moy marme dem euh puti toy na te payor bi saxna lolou lolu mom mo sax lolu wërna lolu nak borom xam am ci ñaari wax ndax bala ngay ndog nga ko wax wala après bon nga ko wax am ñu ne siyaq ñu ñëw ma après ndog parce que da nga marma dem comme loolu ginnaaw bi nga ndogoo pare la am ñu ne danga ko waxee noonu mar ba dem na mooy yaa ngi tiim mar mi daanaka dem na parce que après da lekk ñoo ñu ne nga ko wax avant am avant wala après gis naa ni nga wax ko avant wala après ñaar yooyu yëpp du yàq dara bu la ci neex mën nga ko def allahu alam kii nee na nu ñuy tëjee ñaan boo defee salaatul ibrahima ba pare wala salaatul bi rek baax na dañuy tëjee ñaan tëj ñaan tëj ñaan kay est-ce que am na fuñ ne lii li moy tëj ñaan loolu saxul saxul fenn yoon fuñ ne tëj ñaan ñaan bi ni lañ koy tëjee déedéet ñaan kay dangay ñaan ko rek nga wàccee sa loxo a ah, ñaan yëkëti sa loxo ko rek nga wàccee sa loxo raay bi ñaan ba pare raay loolu du sunna loolu bidaa la loolu saxul fenn raay ñaan ba pare raay sa kanam loolu saxul nit ñi dañ koy def waaye saxul. naam ñu jël ci kaw tuuti user. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa wa barakaatu. ci loolu. bisimilah. Euh, man dafa am benn question boo bëggoon laaj damay jàng alquran quoi mais dama koy jàngee ci application parfois dama koy def mu euh, vitesse bi xaw a gaaw tuuti may may liiraale dama xamul ndax dagal na wala déet. ngay liiraale mais nag vitesse bi dama koy a gaaw un virgule gën mooy loolu gënul lu gën mooy nga bàyyi ko nu nu meloon alxuraan dañ koy soxla koy jàng mu ànd ak tadabbur mu dal mu ànd ak. Mhm. Ah, ah, waaw d'accord incha allah. waaw beneen beneen bi damay essa di di dajje ay bokale xam na di dajje lay ni et tout ça da la laaj ba xam lolu ma nah, sama yaay dafa koy tere lu bari nak mais da nga xamul ba xam lu muy dugg lolu lu baax la lu bax la de bu ànd ak xikma waaw lu bax la takk ci xikma rek bu mu ak ay saga bu mu ak ay dajji moom lu am solo la ibnul qayim nee na xaaju alquran dajje ba ay nak sa def pa nak day ci fan ngay nek man hikma bi day doon ban beureum nga nek fekkee Sénégal mm. fekk mooy mooy tuul di di du non non ma Sénégal maa ngi Maroc maa ah, nga nekk Sénégal bu fekkee amul dugub ji moom daj ji boobu daj yëpp waaw ji boobu daj yëpp. maa ngi Maroc ji moom instant yi moom ñu nekk bitim réew nañu profité bu baax lu ñu daj yëpp ñu def jamono ji moom maa ngi dëkku xës maa ngi dëkku xës. maa ngi dëkku ah, ok maa ngi dëkku xës. maa ngi dëkku xës. waaw. Eh, man naar yi man dëkkal nii dañ a dañ a dóor de bu ma leen waxee ba si a dóor ah déet waay. non dañ may bëgg parfois damay may seen daaj yi wan affaire yi nii mais buñ liiree rek dañuy dañuy bëgg yàlla xam na ko. trop. xëy moom jamono ji xam nga man damay wax mbokk yi benn affaire am na benn mbokk ma dégg fan yi muy wax ci manhaju daawa nañu kii nañu def nii nit ki ba waxam moom c'est que mbokk yi bu ñu delloo ginnaaw tamit quoi. instant yow toog benn méthode daaw wax dañoo passé daaw quatre-vingt quatre-vingt-dix parce que daaw day évolué. instant daaw fu ñu toll mooy daj mbir mi teg ko mu ne fàng. Mhm. nga teg ci baaraam foofu la ñu toll quoi. bu la ñu delloo ginnaaw la ñu delloo ginnaaw quoi naan non léegi xëy mbokk yi ba train bi dafa yenn mbokk yi train da leen fi bàyyi quoi man <laughs> <laughs> yi dañoo toll foo xam ni daal <laughs> la yaayam. waaw yaay booy ñu waaw ñoo ngi ziar bu wér nee naa ko man. ci yàlla yàlla rek kese kese kese kese ci loolu lañ ma yar ba ma mm. màgg ci man tam ma jël ko yóbbu ko daara amoon ci yaakaar nii moo tax parce que damay bëgg ñu nekk ci yoon bu jub bi rek mais tamit ñu nekk ci société boo xam ne moom dafa am ay xarit am ay doomu baay am ay lépp te ñu ngi gis ay statut chaque jour muy statut te moom yëfam day ëpp ndax day bind di bind ci suuf di di di kii naan ay diw day fen diw ay laayan yi ay fenkat lañu ma ne ko ba tey loolu yëpp mën naa ne Mhm. mais li ci jig ñi nga xamne ñu ngi extérieur di wax jigu la ci yow parce que yow di nga dem vacances léeg-léeg Sénégal mhm. xam nga té tu, tu perds beaucoup d'amis bon mu ne ma nag mom moom la ma yàlla digal moom def mhm. man tamit nak bon man da contre ma ko parce que tamit man bu non sama sawa sama dom yëpp dañuy tegu ci yoonu pas mustaqim parce que man jigen la mais je me suis battu ba nga xamante ñoom dem nañu daara malgré que dañ doon jàng français et tout mais bu vacances jotee dama daan fay ñu dem daara al nour fi la ci sebu xotaan fa lañ jàngee ñoom ñëpp waaw macha allah parce que waaw parce que bëgguma li ma dal dal leen te man mi li may nekk nekk mag maa ngi jéem a gëstu sama diine di jéem a jàng quran yalla yalla fay mooy yoon bu jub bi daal mooy yoon bu jub bi mais man dal bu doon sama sago statut yi muy statut laa bëggoon dal nga nga jàppale ma ci dal yalla yalla fay la yaay boy gëdd fay statut yi daal moma ma jaaxal. inshallah allah mais yaa boy gis nga nak deug soo koy wax do bëri ay xarit de. wa lol tam wa lol tam deug la. deug mom soo koy wax paral pour ñak say xarit. wa wa lol la. des fois ma des fois daal ma xass ko ba sonu mu mu bloquer ma. deug la gis nga yonente bi gis nga yonente mm, sallallahu alaihi wasallam bamu commencé wax deug hmm waxuma la ay xarit de. hmm ay taxam bako yar. hmm mo ñëk déclarer guerre boko ñëk déclarer guerre. Baik këram. bu ñëwee di woote bàyyi bàyyi taxam moo njëkk a taxaw ne ko tabbal la ka. ne ko. roxtaange ñeel na la. macha allah. dëgg soo koy wax pareel pour ñàkk ay mbokk pareel pour ñàkk ay xarit. pareel pour ñàkk ay ah kon baax na yàlla ya yàlla ya baax na nee na moom nah. daal nit ñi nga xam ne génn na nah, leen ci nah, même bu dee ñaar sax nee na moom loolu la te mu ngi am loo xam ne ñu ngi ko ciy topp macha allah. am na yoo xam ne génne na leen ci lu ñu nekkoon daal. alhamdulilah. waaw génne na leen ci li mu nekkoon ba ci ay frère am nay frère am ak yëpp ñooñ ci loolu la ñuy dox léegi ñoom ñëpp ku si nekk daal génn nga ci loolu ak ay xaritam. Mm-hmm. nee na moom loolu rek fierteem la même bu dee ñaari nit sax fierteem la. donc ah sant yàlla comme loolu la kon sant yàlla. yàlla nee yàlla nee na mm-hmm. ñu bëri ci nit ñi boo leen mm-hmm. ci nit. parce que booy wax ñëpp kontaan ci yow rek. da nga war a tuuti seen xamal li ngay wax dara. waaw baaxul waaw. macha allah macha allah jërëjëf. jërëjëf yàlla fa yàlla jàppale na moytu nag yéen ñi des fois mun na wax sa sa tur mun na wax tamit sa wax ni diw day fen a ah, moom de ci la dëkk nag. diw bu ko waxee dina ko. ah loolu lay def de laayeen yi ay fenkat ngeen. tijaan yi nii nangam. tijaan yi nangam lii ngeen wax ni ay fen la. da ko da ko rafetal da ko rafetal. ah moom de laa koy wax na rafet rek na rafet parce que na rafet waaw. Oustaz jërëjëf waay waay jërëjëf. mais nag bi nag kenn du bloqué. mère dama koy bloqué mère dama yàq sama daaw sama yiw la ma koy yàqal. wala ñu lay def silence bàyyi bàyyi bàyyi leen di def maire yi silence silence gars koy def silence <laughs> duñ gis asatu yi. ayakumullah bisimilah euh, laa lingeer xam nga góor nga jigéen boobu léegi yaa ngi yaa daay daay alpha ma ne ngeen ñi leen gën a tar léegi quoi asalaamaaleykum yàlla waay alhamdulilah j'ai souffert j'ai souffert sérieux ñetti question kese la am ba du ba kat saaga rafetul saaga baaxul voilà <laughs> j'ai trois questions dama koy ki dama trois questions après ma la parce que dafa am euh, lu je pense que